mbokk Samagal TV mbokk internet yi ngi leen di nuyu leen ziar di leen wax ni ñu ngi fii ci neuvième édition Alét fii ci Touba waaye ñu ngi ko defee fii ci Mbacke taxaw nag ci bergerie boo xam ni sama yaay soxna si dinañ wax fii mooy fan ak moom mooy kan soxna si ñu lañ ah, maa ngi leen di nuyu yéen waa Alét leen nuyu te di leen ziar soxna aji gajaga Touba Ndam. Touba Ndam waaw mm. ah, soxna si euh, tey euh, bergerie mooy ban bergerie. bergerie Loyenne Famille. waaw lan mooy Loyenne ñun xale yi loolu ñoom ñoo ko tuddee seen bopp rek noonu ñoo ko tuddee seen bopp waaw ah. tey ñu fekk la ci foire Touba bi nga nekk di élever kañ nga dugg ci élevage bi élevage bi nag yàgguma ci ci laadum laa yàggut wante eh, xar yi moom yàggoon naa si maa ngi nekkoon ci xar yi yeneen yi di yar ci kurkur ak ak ak asawar yooyu ah. waaye daal bëgg-bëgg laa ma ñëw foiru daaw jéeg daal moom ah. ma ci jógee amuma trois jours dugguma ci xar Wah, xaru rafet waaw macha allah xarit kon daaw jéeg du amoo kon si nga dugg deux ans ren waaw matagul deux ay dugal ak Youssou Dione ak sëñ Moustapha Guèye ku ne jox na ma benn xar ma commencé ay ay ay wala ay ay rek ay rek ay nga dugg ci wàccee ba nga wàccee mais deux ans nga indi maal boo xam ne dañ koo xam muy Ila tubaa ñu koy dégg ma ñu fekk sa gétt noo def ba récupéré wu. <laughs> Ila Touba moom sama caamin moo ma ko jox Pam Ndiaye. Ah. Pam moom moom moom moo ko jox moo ci moo ci jàpp rek nag. Ah. la moom mu ne bu jëree mu génn Touba moom. Hmm. lu mu ko mën a jaay na ko dagg mu ne ci man moo ko gën a. waaw jàpp na jàpp na ci bu baax nag. waaw ci duggee léegi ci laadum bi xam nga laadum nekk na boo ci dugg na xaw a métti. ndax xaalis la nan nga gisee nan ko ko gisee ak fan nga toll. métti na waaye ñun métti bi presque doo ko gis ndax bëgg-bëgg bi. bëgg-bëgg bi. waaw da nga tàmbalee ci xar kurkur bëgg xar. waaw xam naa gën a rafet da ngay gën a da boo ñëwee sa xol bi day sedd mënumaa tëdd gisuma leen mënumaa gontu gisuma leen. ah macha allah walaay macha allah. Euh, tey instant bi est-ce que euh, commencé nga nag di def production di commencé di génne wala yaa ngi ci daj euh, ut xar yi bëgg ba tey. wut ah, ba tey nag xam nga kuy soog a commencé moom. ngay def ndànk-ndànk di wut rek. waaw ah, yu yu yu jigéen yi moom taxul mu kii waaye yu góor yi maa ngi génne nànk nànk yu góor yi. yoo génne waaye góor yi waaw. fa la toll xaalis bi ma jox dugal ñu ngi yor xar yi xar yi ñu ngi yor seen bopp wala yaa ngi yaa ngi yaa jox ba léegi wala commencé nañ laa jox. xar yi ah ñi mu seen bopp nag ci milieu bi daal dem ak ñëw rek <laughs> étape boobu moo des bu ñu ci yor seen bopp nag ñu doog a dugal dara ci bi waaw yàlla baax na yàlla yàlla def xéwal ba euh, na ni maal maal boo ko amee mu nekk maal boo xam ñëpp xam nañ ko na na la demee sa bergerie yi ah maal bi wax dëgg nit ñi bëgg nañ ko dañ koy seet si chaque àjjuma mhm. nit ñi dañuy visité si mu am na tur lool Ila Touba am na tur moom macha allah ñi ma woo ko nag waaye xale yi kii moo ko yor Samba ak sama doom bi góor bi mu doon wax maa ngi woo léegi ñu présenté ma nag bergerie bi kon euh, bergerie bi ku la bëgg a jot nu muy def. bergerie bi. Ah, yaa da ngay bi. Elton u Ndaam. Euh, boo ñëwee ci mbedd tabla àjjana bi rek moo jëm suñu kër. bee boo jëlee boo jàddee tabla àjjana benn kër gi la baare benn kër ñaar bi ko ñetteel mooy suñu kër waaw. numéro bi. 77 232 51 71. 232 51 71. da ngaa bokk Alé. alal waaw dugg naa. ci bokk ren. ren waaw. noo bi. kontaan ci rek. macha allah neex na trop. neex na trop. ambiance bi. ambiance bi moom mënumaa tëdd te ñëwuma. te te da ngaa bëgg a xaar. trop sax. def nga visite. ah <laughs> waaw maa ngi def visite moom. Hmm. waaw maa ngi def bu baax a baax. maa ngi gis xar yu baax. waaye damay xam ne ab débutant a damay soog a dugg. su ma yàggee dinaa ñëw. Ah. foofu la. ah <laughs> waa kay. waaw mbokk sama gaal gis nga bu ñu ci waxtaan wi ak suñu yaay dañuy ñëw rek euh, booy tey loo ñuy présenté gerte gi yaay kan. mooy maam Cheikh. maam Cheikh euh, euh, tey ki may ki Touba. Uh-huh. Ila Touba nekk champion boo xam ne daal am nañ ci moom yaakaar daal. Uh-huh. nekk def production extraordinaire moom doomu Darou Salaam la ak Fatma. daal sax ay ay Fatma. mi ngi ñaata moom. mi ngi ci trois euh, trois ans et demi. trois moom fan la juddoo. moom ba si as joxaan ba si Daal Salaam. ah fan la juddoo. oui ok ko recruté. ñoom cinq mois ci ginnaaw lañ ko recruté ci ci Pam Ndiaye waaw. est-ce que na xar yi. na xar yi am na fi ñaari doom ñu sax. ah moo jur ñaari. moo jur ak ak amee ne. Ah, bi war a def rek noonu. waaw moo ko jur moo ko jur ko xam. ok macha allah moom est-ce na dugg concours. moom mën a dugg na waaye dañuy toog xam ñu ay seen éleveur nañu toog xool. waaw jàngal élevage bi nu demee yaa ma gën a xam. dugaloo ko quoi. dugal ñu ko doom lañ dugal. Euh, ñaari femelles yi ñaari femelles yi kii nii mooy Miss Ndar di setu papis. Uh-huh. papis nekk doom tooyam ma. Uh-huh. kii nekk nekk doom mooy mooy kii mooy moom yi doom nekk doomu biddewu fàq. ak volcan. mu nekk ñaari masistara. léegi production bi ñaari euh, kii ma a añal lañ. ay ku lañ doomu maa doomu El Hadj ak ban ak bii nii bébé Ami. Ami ok bébé Ami mooy borom robu noir bi. moom fu mu jógee. moom ñoo ko judd. Ah, ñoo ko judd ñoo ko judd waaw. mu ngi eh, mu ngi ñaata mois. moom mi ngi ci mi ngi ci 16 mois. 16 mois macha allah. kon daal El Hadj Touba da ngeen ko ñëw rek pour wane ko daal liggéey. pour gën a dugub noonu day toog ak incha allah dinañ dégg ci kanam ci faar incha allah. incha allah incha allah kon euh, waaw bàyyi la